jege ko trop ndax defe naa ne démb ku seetaan combat bi xam ne daj na ci ay coono ku seetaan combat xam ne euh, jàpp na ne moom moo moom moo doon bëre. ndax gis nañu gestes yi nga xamante ne am na ci ak yi nga xamante ne taxawoo na ko magam ki nga xamante ni mooy Baye Mandione démb yàlla dogal li muy dogal euh, Zarko am ndam ci kaw Baye Mandione te nag ñu seet ko bëgg a waxtaan ak moom ci combat bi naka lañ ko waajee xam nga naka la déroulé ak bi mu jeexee parce que gis nañ bi làmb ji jeexee. ma Mandione dafa mel ni nangulu woon jël bi nga xamante ni nii Zarko daan na ko wala boog yaakaar na ni Zarko def na carte appui ba gis nañ ko dem na toog ci palaato bi pour xool ba xam carte appui am na wala carte appui amul yooyu yëpp nag dinañ ko leeral tey fii nga xamante ni mooy wasaare làmb ñu bàyyi ma Mandione mu nuyoo ñu doog a wéy waxtaan wi Baye nuyu naa la. waaw Ousseyn maa ngi lay fay di wax alaa uzu bi kalimatillahi taamaati kulluhum min sharri maa xalaqa waaw di leen wax ni yéen caare di nuyu waa bu baax a baax baax. di leen masaw xam nga di leen wax ne démb gis nañ ñu taxaw suñ suñu mag baay ma Mandione xam nga di leen wax ne ñu ngi leen sant bu baax di gërëm waa Caaray bu baax a baax a baax xam nga ndax Caaray dafa metti mm-hmm. waaw ndax fii autorités yi jàppale woon ñu kenn te démb gis nga Baye Mandione def stade bi mm-hmm. waaw kon ñoom ñoo jël seen i moyen ak seen i tiset jëm si mbër mi waaw ma ngi leen sant bu baax di leen gërëm. bu ñu gis waa Caaroy taxaw bi nga xamante ne taxaw balaa maa ñëw ci loolu sax damay ñëw ci avant. Mm-hmm. parce que ñu ci bàyyi dañ na woon euh, baay ma Mandione Euh, ci li mu jugee jël xoyantaan daan ko wóolu woon jël ki nga xamante ni nii mooy Zarko parce que risque la ci moom wax boobu ñu doon wax naka nga ko déggee ak bi làmb ji amee ba jàll noo jàngatee wax boobu. non loolu du risque sax. wax wax na ko si signature mhm. bi bëre yow daf lay yéene. Mhm. waaw ba mu demee euh, promoteur bi woo ko laaj ko li mbër mi li nga fay mbër mi ndax mi mos na koo bëree muy Zarko. Mhm. Euh, promoteur bi ne ko non non mosul fayeeku lu toll noonu. doon am cofeel ci moom yërëm ko. daal di jël combat bi. ndax moom mu ngi yóbbu seen kër loo tax mu jël kombaa bi mais Ndiol moom bëre xoyantaan muy ki nga xamante mooy roi de l'arène Gambie. waru woon na sax bëre sa ay Zarko yi mhm. mais yéene moo tax mu bëre ak moom waaw. Euh, yéene tax mu bëre moom. mais naka la doon déroulé entraînement yi. waaw mu ngi doon liggéey ñoon man bu naan yow faja sa lu ma weeg dina dem ma ñëwoon may doog a yeew di doog a dem kon ma fu mu tegoon combat bi. Mhm. te daf ko daan sax nag. karaté am na si combat bi. waaw ah, non loolu dinañ ci ñëw. Ah. loolu dinañ ci ñëw bi mu daan yeewu faje dem entraînement fonkoon a làmb ji mais démb dama ñëw stade gis waa caaro yi mbëri sax laa waxuma waxu waxtuma sax waxu supporter ndax mu njoon démb gis ku ne gis na ne waa caaro yi gunge nañ joon mais mbëri ñëpp mànkoo àndoo ñoo gunge bàyyi ma njoon démb ci bés bi vers la victoire. njoon moom moo seqaloon mbër yi. Mhm. barke Alxuraan njoon moom kese moom am am combat xoolul mbër xoolul kii bu jotee avance mbër yi fii takk ngeen ba caare yëpp da lay yónnee sa sa wàll si avance am barki alxuraanu karim yu bëri ma maa yóbbu sax. kon ñooñu loolu da lañ ko mën a fayee. barki Mouhamed. yoon amul kenn xaar ma yàlla ay xuloo alal yi ak naan yi non non mu ñëpp la seqal jàmm saa comprendre même boo amee yenn détails saw yooyu xam ne moom day dem bàyyi la. léegi nag loolu lañ ñëw démb pour fay ko ko. waaw ñu ngi koy sant bu baax mbër yëpp di leen nuyu seen taxawaay tam gis nañ waaw parce man ñu ñoom Ameth Deme Issa Pouye xam nga. seen taxawaay rafet na daal vraiment ñu ngi wan ni ñoom ay wàccaaree leen waaw ñi ñëwul tamit xam nga am na ñoo xam newuñu fi am na ñoo xamante ne xam nga li tey jamono moo leen téye ba nga xam mënuñoo mais seen xool ak seen xalaat yi moo woon euh, ñu gis Baye Mandione sérénité bi mu àndal ànd ak confiance nan lañ ko déyoon démb non ñoon Baye Mandione moom ku ku nga xam ne si làmb sax ma bu mu ko ñekkoo si làmb sax buy ñëw dee ndaale confiance mm-hmm. vraiment moom moom noonu la ko yàlla bindee ñoom da ngay ànd ak moom combat mu leer ni kii dañ koo jékku. mais mm-hmm. barki Mouhamed da day da dangay bëlëfe quoi. ma ni dara dalu ko xam nga. démb dañ koo jékku woon. ban jékku démb ñoom moo daan Zarko jël la làmb man ta am ñaari jël la. Euh, su ma ñëwee su ma ñëwee ci Zarko bi mu tuus dañuy gis sa diggante ak ngeen ngeen ngeen ngeen ngeen jàmmaarloo yéen ñaar ba we jot fa weccante ay coups parce que dañoo gis bi muy tuus mu tuus sottee ko soow mi daw ay supporter yuuxu mu daw jéggi ba ka daw jéggi ba lan lan lan moo taxoon nga daw kaa ko ci digg géew bi. non du géew bi lamba nee ma lan la sénégalais nee lu xam. Mhm. ku fay lu lu lijjanti ko tooñ ak yii nii. Isaac Koumara xam nga nan la koy waxee sax ñoom noonu. Mm, xamuñ ko tooñ ku fay la ñu xam voilà. Mhm. Zarko dafa ñëw bi ñu ñëwee tàcc suñu cumbukaay mu yor benn bideel def si sawu mbaam xëppuñu ko barki alxuraan ñun ñëpp la tooyal. après man xamoon sax affaire saw mbaa. loo loolu bokkul ak bi muy dugg bi muy dugg ci bokkul. boobu bi ñu doog dugg si la bay tax suñu cumukaay. Mhm. mu xëpp ñu saw. sawu mbaam affaire bi xeeñ trop moom taxal journaliste si nekkoon foofu sax. Mhm. si boori cumukaay bàyyi ma ñoon mhm. léegi mu daw ñëwaat nag bi mu demee bi muy tuus di ñëwaat ñun ñu waajal ko man maa ngi koy gis mais gars yi sax bàyyi ñu ko Mm-hmm. léegi bi mu ñëw nekkul si diggu géew bi bi mu ñëw ba suñu cumbukaay si barrière barrière moo ñu baare mm-hmm. mu saaga moom moom nee ma sa bant boobu noonu bu agsee fii daal di may saaga xam nga du si jaar nag mm-hmm. ma ne ko loolu ngay wax ak du dëgg isaay comprendre daal di tëb jege si ko bant laa yoroon léegi taxaw daa mu mu miime ku mu miime nag ma fente daal di koy remise mënoon naa kaa dóor bant bi laa ji yaaxu mais lépp lépp maa ngi sóoraale bañ làmb ji yaaxoo yooyu noonu mais coup boobu sax est-ce que mënu woon yàq laamu ñu parce que boo ko dóoroon mu dem ardo wala boog mu teppeeku est-ce que dina dina Zarko dina bëreeti. waaw loolu moom la nag moom moo ñëw suñu cumukaay ñun bëri nañ ba ni bisi kenn sax dem ay cumukaay Zarko yooyu muy def teguwul làmb la ay ay minutes la rek. barke alxuraanu karim dama réccu sax lu bi. billaahi wallaahi. da ngaa réccu na yoo na am ñoom suñu bagage. saw bi ñu xëpp barke alxuraan sama yére dem fóon naa si guddi mais ba léegi da siy xeeñ saw mbaam daa xeeñ de. man man maa doo xam ay saw mbaam am na yoo xam ne da ay suuf quoi gentleman la am nga yow bu mu si duggati waaw. mais ñu gis euh, mu dugg ci digg géew bi digganteem ak euh, Baye Mandione coow li bay bi dox ci digg géew bi ñu bañ a laalante mais ñu ñëw ci biir géew bi abi bi euh, yaa ngi may wax léegi ne ma 4 appuis dafa am bon moment la 4 appuis am. si première song bi barki Mouhamed. yow mii xam nga ni karaté am na keroog journaliste fa nekkoon ñëpp surtout sax dañ doon karaté am na mais làmb man tam ñaari jël mais ñu ci bàyyi ne nañ loxo ba loxo Zarko bi est ce que teguwul ci ngëm bu bàyyi njoon tegu ko def karaté bon ne rëb nga naan ay la teg waaw xam nga tamit am làmb ji tamit benn instant arbitre des fois xam nga xam nga dañuy nelaw xam nu mu demee noonu daal waaw mais xam nga def nañ suñu recours incha allah dinañu jox suñu da ngeen defaat da ngeen defal ko def ma def dañ koy def kay waaw amul loo amul combat amul lu ñu si lu siy bàyyi. dama gis bi làmb ji jeexee euh, Baye Mandione nanguwul woon ànd nag ànd dem na ba ci ba ci plateau bi toog xool bi mu toogee ci bi xool lan lan lan lan lan la décidé jàpp ne ni chute am na foofu. foofu Ndione amul lu muy wax na mënta wax ba may kan bañ jox ko ndam. Mm-hmm. xool la mën a def jug dem waaw bu ñëwee xam na li koy yoon may mu def ko. waaye foofu mënu faa wax a wax ba am ndam isaan comprendre. Mm-hmm. mais après recours day def recours am. làmb jam na carte appui bi yu leer nañ waaw yow gis nga ko léegi wan naa ko sama téléphone. waaw. daal yéen a ngi ngi toog di xaar CNG lan lay décider. incha allah waaw te du yàgg dara mu génn ndax Zarko moom xam nga. du yoon sax xam nga man ay yooyu sax ay carapes yi sax man neexuma woon ci combat bi barki Mouhamed. da nga bëggoon da bàyyi ma ñoon daan ko. voilà mais xam nga. li naan euh, benn takkusaan man tam ñaari jëli benn hmm. moo mën a am. Hmm. waaw jox suñu victoire na victoire du ndaw. carapes yi leer am na. waaw lu leer a leer am na. Hmm. yow foo toll. man maa ngi entraîné rek di déglu. waaw ndax man musuma ne balance. waaw maa ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax promoteur yaa ngi may woo di ma wax ay combat yu waaw yu sax ba ci yow mi sax doon nga ma wax combat. Hmm. mais maa ngi déglu daal maa ngi sama ruq di entraîné. waaw ndax saa booy xam nga yàkkamte nañ sama combat waaw. maa ngi maa ngi kontaan ci yow di la bu baax. waaw man nag maa ngi sant xam nga waa Thiaré ñëpp. Hmm. di gërëm mag sama mag bàyyi ma ñoon barki Alxuraan Ousseyn mënuma wax sax si hmm. gis néegam nga fekk. Mm-hmm. man bàyyi ma ñoon moo tax ma xam lan mooy valeur u mag mm-hmm. barke arxuraan ñoon moo tax ma xam lan mooy valeur u am na ay mag yoo xamante ñoo mag fuuf sans mm-hmm. comprendre mais comme ni ma joon di taxawoo amul kenn ku ma koy taxawoo fii si kër gi dëgg la xëy na na ñoom dinañ yéene yeneen mag ñi dinañ yéene quoi mais xam naa waaw mooy loolu mais ñoon man la gën a bëgg sax ay doomam barke Mouhamed joon bu jotee avance li ma siy jox sax man du ma ko fay si làmb barke Mouhamed samay combat bi yaay ba sare moom moo koy jël regroupement lépp kon man yoon jaral na maa teg la tayale sama bakkan bi barki Mouhamed maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm ndax mag la ci biir mag yi mhm. man joon moo tax ma xam may mën a dama billaahi wallaahi xam nga di nga am sa mag mhm. moo ay doom mhm. mais ay doomam rek lay gis féetewoo day am sax nag xam nga mais yoon du ma wax daal xam nga ay wax day yaax mais maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm man moo tax ma xam lan mooy valeur lépp lu may def ma leereen ne xam nga ay njuuñ daaj la dama ko su ma su ma xel ni njoon rek damay bàyyi su ma xalaatee ni lii bu nga njoon déggee du ko neex barki Mouhamed moom rek laa ci damay bàyyi bi sam papa di la ma taxawoo bi sam papa génn àdduna kon kooku papa si man hmm. mag la nag ñoo bokk ndey ak baay mais papa la si man dem ba combat bi sama bakkan laa si doon teg barki ndax moom moo ma moo ma wan loolu da ngay sant bu baax di wasalaam gis ngeen noonu lay demee fii nga xamante ni mooy wasaare ñëwoon nañu seet ki nga xamante ni mooy ma Mandione mais contrat moo ko jot a tënk moo tax ñu doon waxtaan ak ki nga xamante ne nii mooy Baye Mandione numéro 2 gis ngeen mbokk yi looloo xewoon démb ca làmb ja gis nañu digganteem ak Zarko mais ñetti neen li nga xamante ni moo jot a am di kontaan ci leen ci yéen di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba yaa ngeen jëf